أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen bokk yi ñuy seetaan ci réew mi ak ci biti réew fu fi waay manti nekk rek ñu ngi lay nuyu nuyu bi gën a sell tey ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal nu ñun ñëpp nu yendu ci jàmm ak salaam di ziar suñu kilifay diine yi eh, di leen ñaanal seen ndono li yal na leen ko yàlla teyal ba dara du ci yàqu di ñaanal kilifay aada yi ñi nga xam ni sunu borom mi joxe nguur moo leen teg ci boppi réew mi li ko tàmbalee ci son excellence le président Macky sàll ba ci ki gën a suufe kenn ku ci nekk rek loo yor pour ñu defar ci réew mi yàlla na ko yàlla mi nga xam ni moom rek a mën a sottal sottal Sénégal jëm ca kanam di ñaanal ñi feebar yàlla nañu wér ak jàmm ñi juum dem kaso it buñ fa jógee yàlla bu nu juumati ba fay dellu di ñaanal sénégalais yi nga xam ne nag tabaraka wa moo def foo dem ci àdduna bi fekk leen fa ñu di leen ñaanal yal na yàlla defal leen li ñuy wut te musal leen ba nu ñibbisi ci jàmm ak salaam ndax tukki neexut metti na lool waaye li ngeen di wër yal na ngeen dajeek moom te yàlla def ci seeni poos lu bari ni ko oustaz Alioune Sall di waxe di ñaan nag ci réew mi jàmm ak salaam jàmm ji sax dañuy ñaan sunu borom dollil nu ko rek waaye bari na loo xamante ni defal na ko senegal te ñu baree baree bari ci Afrique amuñu ko ñoo ngi koy sant moom tabaraka wa taala ci teral gii mu teral sunu réew ak ci niimu ko defee aaral ñu ko tabarkalla ba yu baree baree bari mi ngi am ci àdduna waaye ñun ump nañu te yàlla nañu gën a ump abadan yàlla di fi def jàmm rek ndax réew la moo xam ni ñi fi dëkk nitu jàmm lañu xamuñu ay yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yi nag xam ngeen ni ci seen émission ci réew mi fii ci 2STV ak si suñu rajo origine FM point 4 eh, li ñuy waxtaane moo di altine bu nekk dañuy dem ci benn royaume bu nekkoon ci réew mi waxtaane ko waxtaane nañu ko sance waxtaan ña fa nekkoon lañ fa doon def ak famille ya fa daan falu ak nañ fa daan fale yooyu yëpp ñu di ko waxtaane tey ci royaume bu mag nag boo xamante ni moo di Saalum xam nga Saalum eh, ak Siin ay benn famille la daanaka ndax eh, royaume la yoo xamante ni jaxasoo woon nañu lool dem nañ sax ba am buur boo xam ne ñoom ñaar ñëpp ñoo ko bokk muy Mbégaan Nduur nekk na buur Saalum nekk na buur Siin euh, xam ngeen bu njëkk sax danga daan dégg ñu naan la région du Sine Saloum parce que booba tàggaleegun Sine ak Saloum royaume bu mag boobu nag tey moom lañ bëgg a waxtaane ndax liñ ci jublu moo di am réew soo fa dëkkee wala nga dëkk cib gox cosaanoo fa dafa laaj nga xam gox ba xam sit ya xam la fa xewoon surtout nag les xale yi parce que xale su teelee xam boppam xëy na yu baree baree bari du ca mën a dugg ndax dina am ay royukaay dina am ay yoo xam ne da koy téye ci moom muy cosaanam di aadaam di ay baaxi maamam tey baax yu baax nag waaw yoo xam ne yu mat di téye la waaw yooyu nag moo tax altine ju nekk ñu jéem a waxtaan ak yéen ci benn royaume tey nag ñuy dem Saalum bu ci kanamee tuuti dinañ jokkook suñu xarit du juuf eh, mu wax nu li mu xam ci Saalum eh, parce que royaume boobu nag dëgg dëgg lu bari xew na fa ah, bu ñu nee Saalum nag mooy eh, Kaolack waaw région de Kaolack fi mu ne nii mooy Saalum waaw la ko fa tàmbalee même Gambie sax ci Saalum la bokk <laughs> Gambie ci Saalum la bokk boo demee ña fa dëkk ñëpp sax daanaka ci Saalum lañ jógee dem fa gis nga ko ay Passy ay Njaafat ay ay ay ay eh, dégg nga ba ah, ak dëkk yu rëy yooyu ah, nga xam ni maabo ah, dëkk yooyu nga xam ni dëkk yooyu yëpp ci Saalum la bokk dëkk yu mag yooyu gis nga boo demee capital ba xam nga mooy kawoon kawoon fa la dernier buur eh, Saalum nekkoon di maam foo juuf Diouf ndeysaan dem nañ ba yegg fa eh, waaye yal na yàlla defar kawoon foofu xam nga Makodde ak Samba Lawbe foofu lañ xeexee woon doom ak baay ba ca kawoon guy ga guy njulli ah gis ngeen ban fa demee di def émission ci jàmbaar jooju ñuy wax far Farba Diène Sarr nekkoon far ba bu bu bu bu bu buur si buur Saalum eh, nga xam ni eh, wax dëgg yàlla ci taarixu Saalum kenn mënu ko wax te tudduloo Diène ba Diène saar waaw ah, moom lañ duppee ministre bi yor urbanisme ak cadre de vie Diène Farba Sarr maamam jooju la ñu ko tuddee do nekkoon jàmbaar Saalum boobu nag tey bu ñu mënee jokkoo waa régie ak euh, Mamadou Diouf rek bu ko defee mu wax ñu nag expliquer nu l'historique de ce grand royaume le Saloum waaw waaw Mamadou Diouf bu fekkee mën ngeen ko am rek bu ko defee nu ñu waxtaan ak moom mu jàngal nu nag wax dëgg yàlla royaume bu mag boobu royaume boobu nga xam ni fa la fa la jàmbaar yu bari dëkkoon boo fa demee di nga fa fekk wal joojo njaay borom discours bu rëy ba le 26 euh, août le 26 septembre 18 1958 fii ci place Protet fii nii wax léegi place de l'indépendance nga xam ni place boobu wax dëgg yàlla wal joojo njaay lañ ko waroon a tudde <laughs> parce que moo fa def loo xam ne ah kenn dootu ko fàtte moom wal joojo parce que booba général de jóge na euh, Conakry mere fa lool bi mu ñëwee fii fekk fi ku ku mel ni Sékou Touré un nationaliste ku bëgg Afrique bëgg liberté parce que nag liberté ci ñàkk moo gën euh, amoo libe euh, moo gën njaam goo xam ne ci ci da ngay euh, am njaam moom as gor munu caa looloo tax discours bu rëy boobu ba général de jël jël ndeysaan discours am def ci poste bi keroog lañ doon wax naan si wule voulez l'indépendance prenez-la le 26 septembre xam nga loolu lu rëy la loolu nag mooy discours wal joojo njaay bi mu defoon fii te muy sëtu buur Saalum ndax ci ñi waroon a nekk buur Saalum ci la bokk waaw ah, waa régie bu ngeen ma mënee wool Mamadou rek ñu jokkoo ak moom bu ko defee ñu waxtaan mu wax ñu royaume boobu nag waaw ah. allo allo allo way salaamaaleykum maaleykum asalaam. sëriñ Mamadou. waaw sëñ El Hadj Tall na nga def ziare maa ngi lay ziar. Tall Tall naa ziar. na def. waaye maa ngi fi maa ngi fi Tall Tall. waaw Mamadou nag xam nga yow mas nga bokk ci émission démb. Hmm, waaw mas naa ca ca weer yële. waaye tey dañuy waxtaane royaume du Saloum ni koy defee altine bu nekk. Hmm. demoon nañu Siin dem Waalo dem Kajoor tey nag ñuy waxtaane royaume du saalum sama laaj bu njëkk nag mooy royaume du Saloum ñan ñoo ko sanc jërëjëf bisimilah Mamadou euh, ki ko sanc mooy Mbégaan Ndour Mbégaan Ndour nag mhm. gelwaar la mhm. parce que mooy dixième roi du Sine da mhm. nga xamee ne Maysa jàll na tase Fay Waagaan Cuma Paate Yanga Sarr Joomaay Ñaan Silmang Maroon waa Sila Fay ak Jéenu Say ci la Mbegaan ñëw muy dixième roi mhm. waaye nag Saalum booba su ñu ko mooy ay alpulaar ku ñu tudd Ali Elibana Sall jógee ca euh, Gédé mhm. moo doon jiite Saalum def fa jàkka di julliloo séeréer bi te séeréer boobu ils avaient leur mhm. Mbegaan nag ne loolu mënul wéy ci la jógee ñëw Saalum dal ci dëkk bu ñu naan coopal boo sànkaab lépp Kaolack Mm-hmm. d'ailleurs boo fa demee am na li séeréer naan ak kambalaan mbegaan maanaam foofu la doon sangoo lu bain mystique pour affronter Elibana mm-hmm. bu mu sangoo nag ba jekku ci la affronter Elibana mm-hmm. ak sa sœur rey ko bi ko reyee nag beneen waaye mu tudd Jatara Tambe du bugg si jóg ne il faut mu diriger waat Saalum mbegaan séeréer yi affronter ak moom rey ko d'ailleurs ça tombé en Ngathie boo mhm. demee dañ naan fii mooy la tombe de Jakara xatub Jakara mhm. bu nawet jëriñoo saan xëy ay ay di ko wër di ci ñaan pour yàlla may leen ay taw ak yooyu daal. Mhm. bu mu ko vaincre nag. bugg a unifier le royaume du Saloum. il a eu l'appui de Walbéry Mbacké nga xam di jóge na Yundum dans le Boundou. parce que le Diogni était fractaire pour que bokk ci Saloum ci lañu ci la ko jàppale militairement. ba Euh, créé le roi du doon le premier roi. Mhm. en reconnaissance à ça nag mu ne mhm. gannaaw wàll mbéy mi ndaw daf maa jàppale ba ma inifier le Saloum danaa ko jox une province autonome c'est le Ndoukoumane. Mhm. nga xam ne ndaw ko ndaay fa la nekk du doon bëlëb. waaye en même temps am possibilité doon buur Saloum. Saalum nag tudduloon Saalum Mbey la tuddoon Mbey. Mbey waaw. Mhm. Mbey am Mbey waaw. mais gannaaw euh, Saalum Souané bi. effectivement dafa jàppale Ndege moom moo. gars yi ngeen génneel ma tuuti image yu royaume du Saalum waaye. <laughs> waaw waa régie. Mhm. waaw wàcce Mamadou waaw. waaw. Mhm. mais que ima euh, que Saalum dafa jàppale mystiquement. en reconnaissance à cela mu ne dinaa ko repartir repartir le le royaume. tuddee ko Saalum lépp di Saalum waaye c'était le mbéy donc le premier roi du Saalum c'est buur Saalum Mbégandour mooy wax ne nag Mbégandour aussi lu tax c'est le seul roi boo xam ne il a sur le Sine et le Saloum te may fàttali aussi loolu c'est normal parce que ascendance am maanaam cosaanam yaa yaayam princesse Gelwaar la woon am benn góom boo xam ne lañ naan une plaie incurable kenn mënu koo faj. mooy robaale robaale. robaale waaw ci wolof. ci wolof séeréer naan ko doy xam. <laughs> mais Saalum lañ ko fajee ki ko faj nag mooy Marino Marka Thiat nga xam ne c'était un grand chasseur. Mm-hmm. am ay pouvoir mystique moo ko faj bu mu ko fajee nag la princesse est rentrée en haute mm-hmm. bu mu amee doom nag ñu ne ko kaay baptiser sa doom bi parce que baadoolo nga te waaye yaay yaay papa. Mm-hmm. donc Marka Thiat avec tout ci la départ Saloum dem mm-hmm. ba mu demee à Mbissel en ce moment Mbissel c'était la capitale bi Sine mm-hmm. bari nañ bari boo xam ne kenn mënu leen héberger ci néeg mm-hmm. ci guddi ga asamaan si suuf taw taw yu métti bu bët setee buur Sine ne ah suma mbokk séeréer Saloum yi de tooy nañ te danaa am gàcce dag ba ne ko man daa ñi ma fa fekk kenn tooyu ca mu ne loolu nu mën a nekkee marka ne ko duma ànd ak délégation séeréer ma ñëw ba siin ñu topp sama ginnaaw asamaan di daw ci ñoom ba ba set parce que def naa linguistiquement li ma war a def wërale ko mhm. mu ne gëm naa ne séeréer bu siin ak bu saalum daal séeréer la woon a doon kon yow mot ngaa jur buur mhm. kooku mooy Ndegane Ndour donc mais mhm. son père Badolo entre parenthèses parce que le royaume en ce moment Saloum ay occupant la woon et une princesse moo jiite nag pendant vingt ans le Saloum avant mu céder le trône à Ladji Mm-hmm. waaw euh, mamado mm-hmm. Saloum euh, yan dëkk ñoo doon capital ya waa régie bu ngeen ma manee génneel tuuti image yu euh, yooyu ma leen joxoon sànq waaw ak yan yan dëkk ñoo doon capital yi Saloum yi. waaw xam nga dafa am dëkk yoo xam ne nag capital day changé am dëkk mm-hmm. changé. waaw. Salim Saloum capital toujours kawoon la mu ko doon. Kaw sa kawoon c'est la capitale du Saloum. mais nag amoon na ay province mhm. province province yoo xam ne ñoo constitué woon la Saalum mhm. par exemple boo xoolee la province du Kawum Saalum Saalum le Ndoukouma mhm. le Gagny-Signy ah le Diokoul Gandiaye le Foular le Lop le Laguet n'est-ce pa ak même le Badibou parce que sa le Sandial ak le sabah mais à un moment bu nga xamante almaami Maba Jaxu Ba créé na le le mm-hmm. Sandial et le euh, comment dirais Sandial ak sabax dañuy dem rattaché woo baat bi bu constituer ce qu'on appelle le RIP mm-hmm. mais ay gox yooyu moo doon gox yu wute ak jooñi ñi nga xamante ni ñoo composé am Saalum capital bi di kawoon mm-hmm. nga xam ku mosa falu bu kawoon ngay résidé la capitale du Saalum waaw euh, Mamadou Saalum euh, nan nan nan lañ fa doon fale euh, buur ak yan critère ñoo doon tax ñu def la buur. waaw xam nga comme li ma la xam nga ñu jógee bi Mbégaan du ñëwee créé mhm. parce que dañ naan le royaume du Sine et du Saloum sont des sont des royaumes frères. Mhm. et c'est des royaumes habités par le peuple sérère. Mhm. donc gelwaar yi ñu jóge Sine rek maanaam maanaam les nobles yu jóge Sine. moo ñëw meññ si def seen tentative au niveau du Saloum. royaume boo gis nag dafa am configuration parce que dafa am la buumi mm-hmm. am les grands jaraaf mm-hmm. am le ba Kaba maanaam mm-hmm. chef des armées am aussi ay chef de province yoo xam ne gox bu ne yaa donc bu fekkente ni comme à l'image du bu buuru demee ba nga xam ne war nañ ko fal ñooñu yëpp dañuy daje la grande assemblée ci grande assemblée bi nag ñooy tànn def ay critères bu xool ki nga xamante ne de par sa trajectoire ak de son sang royal il est apte ñu introniser ko def tout le rituel et euh, mu dem dans le village la comment dirais-je euh, après mhm. euh, def son bain mystique et tout ça bu ñëwee nag ñu introniser ko roi du Saloum. Mhm. waaw Mamadou. defe naa Saloum seen dernier buur Saloum moo di bi ñu mujj a am ci avant ñuy ami indépendance mooy maam Fodé. waaw Fodé Nguy. waaw. waaw Fodé Nguy la. Mm-hmm. Fodé Nguy. 1935 mm-hmm. 1969 la doon buur Saalum. Mm-hmm. maanaam il a régné pendant 34 ans. Fodé Nguy. régné na pendant 34 ans mooy dernier buur Saalum. mooy maamu El Hadji Diouf l' avocat des grandes causes. foofu mooy dernier buur Saalum. 34 ans la régné bu yàgg waaye ku gën a yàgg régné ci buuru Saalum mooy buur Saalum Malew Taan Diouf. Mm-hmm. moom il a régné pendant quarante cinq ans. Mm-hmm. waaw Mamadou jërëjëf. jërëjëf may wax ko si eh, comment dirais-je El Hadj Tall. waaw. fi may jeexale mooy di ñaan vraiment yow nga xam ne tu es un grand historien un patriote. Mm-hmm. ñu réhabiliter vraiment le patrimoine immatériel du Sénégal maanaam ay sites historiques lu ci mel ni Ngol Ngol lu ci mel ni la maison royale de Kahone qui est en ruine. Pathé Badiane. yooyu yëpp yàlla def na dem naa fa mais je pense que le patrimoine immatériel du Sénégal doit être réhabilité mm-hmm. may def un clin de nag beneen Mbour Saloum boo xam ne aussi comme à l'image muy Samba Ndiaye muy directeur général de la société des infrastructures navales kooku mm-hmm. sëtu Mbour la parce que maamam mooy Sabalangaar nga xam ne mm-hmm. moo jur Waal Jojo Ndiaye maire de Kaolack nga xam ne ne en août ba déggul jógee ci Conakry ñëw Sénégal pour référendum bi Senghor nekku fi Mamadou Dia nekku fi waal joojo Njaay kooku moo taxaw loolu Sénégal bu ko nag mooy maaram suma waa ji di maire Ndofane di sama xarit jërëjëf jërëjëf Mamadou Diouf euh, kontaan nañ trop surtout appel bi nga def nag ci defaraat euh, suñu site historique yi tuddaale ci ngool ngol kontaan naa ci trop ak Paté Badiane ak euh, kawoon boo fa demee ñun la fii la fóode dëkkoon vraiment sa yaram day daw wax dëgg yàlla yooyu yu mat di defar la te yaakaar naa ni dinañu ko defar ndax euh, Sénégal tàmbali na sax loolu gis ngeen bërki démb rek dem nañ ci Lat Joor fan yële demoon nañu ci fi ñu def Kocc Barma fekkoon nañu bu yàgg ñu defar ko ah waa kër Déthié fu njóogu yi ñoom it ñu ngi ci pexe pour defar seen barab yooyu am naa état bi dina ci jàpp waaye nag dafa bari yoo xamante ni it ña fa sëtu Euh, te kenn ku ci nekk booy fëgg sëb dënn naan diw mooy sama maam war ngaa fexe ba fañ koo tëral nag wax dëgg yàlla nga def fa dara waaye ban sànni sa maam nga xam ni boo demee ay xar nga fay fekk ki bëy wala ay mbaam ñuy for ba pare ngay fëgg sa dënn di ko bàkkoo loolu it wax dëgg yàlla lu mat di seet la ndax nit nag euh, dañu ni lépp lu ñu lay dimbalee na ca fekk say loxo ndax boo bëggee ñu réhabilité yenn yi nag yéen ñi bokk ca famille ba yéen a koy réhabilité avant ñuy ami indépendance euh, maam foo de moo fa moo fa ne njëkk mujj a nekk buur buur Saalum waaye tey jii nag am na ñaari buur Saalum yu fa nekk muy euh, suñu xarit euh, Gédel Mbodj ak suñu suñu xarit noo Ndaw ñoom ñaar d'accord ñaari buur Saalum la waaye ñoom ñaar doo dégg mukk problème seen diggante pourquoi parce que ay bokk lañu ba pare joxante nañu cër man ku ci nekk toog naa ci yow di waxtaan ak yow waaye kon ku ci nekk jox nga wor ma sa sa mbokk moomu te àdduna moom noonu la ndax lépp àndit yombut waaye nag yàq léppit baaxut parce que même ñoom bu ñu amee ñaari buur saalum it ñoo ko tanee waa kajoor bi nga xam ne amuñu amuñu dameel amuñu teeñ amuñu ñoom bawol hmm, waaloo dafa guñu seen barak euh, <laughs> waaw siin ba léegi fa la guñu seen buur siin ah njàmbur jaraaf njàmbur kenn falagu ko ah, te yooyu yëpp dafa dafa am solo dafa am solo ñuy ñuy ñuy dekkal wax dëgg yàlla jolof gis nga ko amaguñu amaguñu buur ba jolof te pourquoi ñu pourquoi amuñu ko bés bu nekk wax dëgg yàlla ngeen gis ni ah jolof wax dëgg yàlla loolu war na faa mën a nekk comme ni mu nekkee Saalum comme ni mu war a amee Kajoor te askan yi li tax ñu war leen a defaraat. moo di day day day day defar lu bari ci réew mi waaye nag luy jafe la ci yenn gox yi ndax sénégalais yi léegi kaay leen nu juboo dafa mel ni da leen a jafe àndandoo daal munuñu ko parce que nag dafa am luy ne ci doomu aadama mooy wane ni kii moo gën nun ñëpp mooy koo xam ne bu cër ñëwee mu mën a jox ñëpp moom bañ a seddu il faut que nit ñi di doxee noonu parce que lii yàqu dafa dagg bu yàgg tubéy nag bu daggee boo ko bëggee ñoor da ngay toog summi tubay ji ñoor ko solaat ko waaye mënoo di dox di lëfër lëfëreek moom bëgg koo ñoor dafa am jamono boobu da ngay toog summi tubay ji ñoor tubay ji solaat tubay ji mais askan yu bëree bëri léeg-léeg nga ni buur ba jolof laa bëgg fii ñun la hoo oh, sa de loolu du jafe ndax boo ko yëkkatee néeg nangam jóg néeg nangam jóg mais bokk gi benn famille la man jàpp naa ni man ne tey jii waa ngol-ngol wax dëgg yàlla bu nu daje woon ni ma kii la nu bëgg nun mu mu jiite nu ngol-ngol te du man maa njëkk ni d'accord naa ma man ak même bu dee sama doom sax d'accord naa parce que nag buur yi nu soxla léegi il faut que gars yi di di di ci di ci waxtaan mooy du buur bu mën a dóoru fital ak i jaasee ki yat ndax loola xewi na léegi buur bu am njariñ buur bu mën a dimbalee buur bu mën a taxawu askan wi buur bu man di faj soxlay askan wi buur bu man di jële ca kaw di indi ci askan wi kooku lañu soxla mu doon buur ca pays ba mu nekk waaye du du ki fi dàqa xeex xeex xewi na te it kaay jiite ni ma ko sama xarit Samba Fall di waxee toujours rek nee na ma kaay jiite say bokk mooy kaay dee ndax lu waaye am ci soxla jox ñëw ci yow loolu nag fokk ñuy waxtaan ci kenn ku nekk fexe ba lu baree bari nga ba ko parce que bu fekkente ni eh, ñenn ñi ni ni ni niy seetantee yëf yi la ñu topp yaakaar naa ni yooyu du gaaw a taxaw te fi mu ne léeg-léeg nga dem ci ci benn gox ñu ni la xëy na fii dina yomb waaye du yomb ci ñu bëree bëree bëree bëri waaw parce que foo ci te foo ci dem pourtant waroon na fa mën a yomb ndax ña fa doon falu seeni sa nga fa jaraaf ya seeni sëtë nga fa sax-sax ya seeni sëtë nga fa buur buur buur buur buur buur yi nu doon eh, dugal ci ci province yi ah ñoom ñu seen i nga fa maanaam daal ñi yoroon pouvoir bi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk bàyyi nga fa say say ndono te ñooñu wax dëgg yàlla mat ba dund moo gën manqué ba far dee di xeex ba dund moo gën euh, euh, xeex ba euh, maanaam muñ ba dund moo gën wax dëgg yàlla di xeex ba ngeen ñëpp ngeen dee te am na loolu tànk defuñu ko daanaka dafa mel ni dañuy dox nii rek waaye ay muuma lañu te nit nag wax dëgg yàlla kuy kuy wax di dégg moo gën waaye nii nuy doxee nag il faut que nu changer te buñ bëggee restaurer suñ yooyu yu baree baree bare ñu ba ko waaw lu bari parce que nit suñu la nee sa cousin wala sa doomu baay wala sa doomu ndey wala sa doomu bàjjan mooy buur Saalum wala mooy buur Siin mais yow kenn yaa nga ca nguur ga sab jaam mooy buur <laughs> waaw loolu doy na sëkk waaye bu fekkee kenn ku nekk dafa jóg ni man maa koy doon parce que du politique su ngeen ko bëggee jàppee nii parti politique yi di doxe nga xam ne danga koy créer pour tes propres intérêts da nga koy créer pour fexe ba bokk ci benn coalition di mos demewul noonu lii pour dekkal ngor la taxawal ngor taxawal ngar mi ga amoon jàngal sunu gone yi li ñu war a doon ci ay valeur yoo xam ni valeur yoonu moo tax nu am woy tey ñu nuy tudd di tudd buur Saalum Mbegaan di tudd keneen ak keneen di tudd wal joojo valeur yooyu pour préserver ko sàmm ko loolu képp mooy le but de la restauration de nos royaumes mais du pour des intérêts pécuniaires non non non du xaalis du pour wut xaalis du pour politique ça n'a rien à avec la politique waaw d'ailleurs moom su ca politique duggee sax daal di koy rey parce que bokkuñu ndax politique moom ah, politicien bi mën na laa wax lu ko neex bu ëllëgee du ko def te buur mënul loolu buur du wax muy dañ waaw munu munoo nekk buur Saalum taxaw wax ak waa réew mépp ñu leen dinaa def nangam te defoo ko déedéet loolu loolu buur Saalum mënu ko waaw xam naa nag tey <laughs> mbañik laa waroon a invité mbañik bu bu baax bi nekk fii ci ci ci ci 2STV nga xam ne décor yi ngeen di gis yëpp tabarkàlla moo koy defar te dëkk Saalum gëm lool it Saalum xam naa tey bu bu ma bu ma ko gisee sax boo moytuwul dinañ xuloo ndax dina ma ne lu tax waxoo ma ni Saalum ngay ngay waxtaane te mën na ma faa dolli lu bari nag loo xam ne bu ma ko waxoon dinaa ko mën a wax fii waaye daal nan fexe ba kenn ku nekk xam ni fexe ba dund moo gën fexe ba dee parce que nag pour nu dund pour ñu dundal li nu li nu li nu li nu li nu li nu li nu li nu li nu moom il faut que nu bàyyi lu bari parce que fi mu ne ñu baree bare su may suñu déggee may wax yëf yi léeg-léeg nit damay pare nit woo ma téléphone ni ma ah ngol-ngol li ngay jéem day baax na trop bëgg nañ ko trop waaye du mën a ne de ma ne ko lu tax mu ni ma parce que gars yi jubóowunu te man damaa xamut benn famille naka la ñuy mën a jubóo di ko pour lan benn famille nga xam ne yéen yéen a bokki maam yéen a bokki baay seen i ndey bokk seen i baay bokk ndax bu njëkk royaume yi noonu lañ doon séen en général doom yëkk ak doom wëllu la ñuy boole waaw ñëpp famille bu benn la xanaa benn famille kay wax dëgg yàlla euh, ku ne war naa mën a accepter sa bopp. te royaume yi nag am na fa yeneen problème parce que nag das faa juddoo nu ne yooyu it fokk nu muñ te xam ni noonu la doon doxe waaw xam ni daal ku ca bokk rek ñu booleel la ci bañ di sulli yu bon yi tey sulli yu baax yi rek yu bon yi ñu suul ko ndax man toujours damay wax ni samay biiri maam ak seen histoire lu ma ca xam mu ñaaw bu dee man dong maa ko yëg keneen du ko yëg parce que man bu ma sañoon lépp lu sama maam ñaawle ma suulal ko ko loolu nag fokk ñëpp yor ah, jikko jooju te it aw askan boo ca nekkee bu defee ni ëpp xaalis moo tax nga gën leen déedéet mën nga leen a ëppale mais mënoo leen a gën say nawle lañu du xaalis mbir mi du ëpp xaalis xaalis bi nag ci la parce que nag buur bi nu soxla léegi bu am njariñ la loolu moom daanaka sax na wax dëgg yàlla nag moom mooy base bi waaye far buur boo xamante ni mënut a faj benn soxla it loolu parce que bu njëkk ba ñuy fal buur pour mu défendre nu ci dooleem ak deretam la woon ak bakkanam léegi nag soxlaatunu loolu léegi armée nationale du Sénégal république du Sénégal moo nuy assuré nun ñëpp sum sécurité waaye li nu bëgg nag mooy buur bu bokk ci askan wi ba noppi amal njariñ askan wi di defar askan wi ci làmmeñam ak ci poosam boobu lan soxla waaye nag fokk yenn réalité yu amoon bu njëkk bu ñu bàyyi ko parce que euh, même institut bu ngeen gisee par exemple institution yi wala wala loi yi léeg-léeg dañ leen di soppi léeg-léeg nga dégg ñun la dañuy def référendum ñun ci suñ biir royaume mi war nañoo mën a def ay référendum yenn critères yi nga xam ni peut-être yombul actuellement ñu ñu dàq parce que yé ñun noo doon nguur gi te waxi ndee bu bu bu dee dëgg ndund yaa tax ñun ñii dund nag li nga xam ni mooy mooy moom la ñuy def fexe ba ñu am harmonie ci suñu biir mais loolu dañ ko war a créer il faut qu'on évolue mais mënu mënoo ni par exemple da ngay indi ay xalaat yi wala nguur goo xam ne c'était en 1640 non non nañ doon dundee mille six cent quarante mënuñu ko dundee actuellement en deux mille dix neuf ce n'est pas possible il faut qu'on avance parce que dëgg day dox xam nga boo da ngay dégg ñu naan la dëggal sa tànk dëggal sa tànk foofu la baatu wax nga dëgg jóge parce que tànk day dox te dëgg day dox la vérité marche donc foog nga dox ànd ak moom mais boo bëggee figé wu rek ci benn stade ni fii laay stagné doo jàll loolu du du évolution te àdduna du dara lu xalaat nag tey jëfandikoo sa xalaat sa xel nañu seet yenn royaume yi yenn yi nga xam ni c'est des c'est des c'est des barrages pour ñu mën a euh, restaurer yooyu ñu fexe ba dindi ko def ay amendement mën na nekk su fekkee par exemple dañu ni sa yaay bu nekkul gelawaar mënoo fa mënoo falu mais am na famille boo xam ne bu gelawaar masaana jàll moo ca tegu booba bu ko sa yaay doonee ñu accepté nga falu mais bu fekkee da ngeen a bëgg naan bu sa ba yaay dul gelawaar rek doo mën a doon mukk buur siin wala doo mën a doon buur saalum ça va être très très compliqué donc il faut que fasse des amendements fexe ba ñu nit nii loi yi di évoluer nii ñuy defee ay référendum di seet nag loi yi nu arrangé méngoog jamono nu seete ko noonu évoluer nag avancé mais la doon am 1400 wala 1300 boo ko bëggee teg léegi day indi jafe-jafe ñu jël ki ci ligne bi asalaamualeykum allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. kooku tàngoor ngoor. waaw noo tudd ak foo ne. waaw man de sa benn soppe la. waaw bisimilah. ku la naw la sa émission yi ngay def. jërëjëf. parce que vraiment yaay réhabilité histoire du Sénégal. Uh-huh. cosaanu Sénégal c'est important man dama bëgg cosaan. dëgg la. léegi nag man saa yëpp dama doon wax naan naa la woo ba ne taal moom day wax fi histoire Kajoor. ak Bawol mais déggaguma ko ba wax ci Saalum. Saalum. moo tax bi ma taalee gis nga wax saa ngay wax ci Saalum ma ne ah tey sa l'occasion de t'appeler. ah dem naa ba tàyyi nag Saalum. <laughs> maa ngi doog suivre émission nag ci Saalum mais même sa émission Kajoor yi. c'est très riche. oui. waaw donc ce projet boobu damay ñaan état ñu jàppale la si. c'est bien pour la postérité parce que suñu doom yi nga xamante ne ay tubaab lañ xamuñu dara ci histoire Sénégal. wallahi wallahi wallahi soo leen di wax diw moo nekkoon fii Lat Joor Lat Joor sax tane na parce que ñu ngi koy jàng à l'école. mais yeneen buur yëpp xamuñ si dara. dara xamuñu ko. danga leen di wax kii moo nekkoon fii ki moo nekkoon fii ñu naan la luy loolu. loolu c'est très dangereux alors que tubaab bi fi jëlee buur yi ñoom ñu ngi des ak seen. ah ba tey. ñu ngi ko fonk lool sax. ñu ngi ko fonk defe ko di ko jàngale seen école yi. oui ah mais nag loolu moom damaa defe ni suñu faute <laughs> jërëjëf soxna si jërëjëf Saalum Saalum boobu xam naa dem naa nag Saalum ba tey <laughs> allo ah, ok euh, loolu wax na dëgg parce que nag. Euh, tubaab yi ñoom ñu ngay jàng seeni maam bu baax a baax a baax a baax waaye ñun fii boo nu tegaloon fukki tubaab teg fukki buur woo élèves yëpp yi ne université ya ne ca lycée yaag yëpp nga ni leen wax leen ma fukki tubaab yi wax leen ma fukki buur yi sénégalais yi dinañ xam juróom-ñeenti tubaab duñu xam kenn ci ci fii parce que ñoru leen ñorul xam nga autonomie mënoo ko am te amuloo fit xam nga boo xoolee sunu maam yi ñi ci daanu yëpp li leen daaneel mooy fit loolu nag lan amul c'est-à-dire euh, ñun euh, ba léegi bu fekkente ni amuñu fitu euh, jàngale sunuy maam sunu histoire ci sunuy école lu dul di jàng Baudelaire ak Molière rek dëkke ko mais moo tax ay Baudelaire ak Molière rek ñooy nekk ci mbedd mi parce que jàngaluñ leen ay Mbégaan Ndour jàngaluñ leen Wasila jàngaluñ leen dégg nga Yirim Mbañik Mbóoj jàngaluñ leen Déthié Foundiougu jàngalul leen Amari Ngoone Sobel mi nga xam ne sénégalais bu ne waroon ngaa jàng leçon am na ñoo xam ne ñu nga dëkk biir Kaolack di ay saalum saalum xamuñu guy guy njulli parce que euh, dégguñu ko fenn te guy googu c'est c'est y a les histoires mais ñoruñu parce que ñemewuñu ko xëy na man dama jàpp ni dañ noo tere sunu bopp parce que lii euh, boo xoolee sax sunu mbedd dëkk yi <laughs> dëgg-dëgg ah, ci liñ yor ci ay jàmbaar dugal biir Ndakaar rue Félix Faure rue Jean Marchand rue Gox rue euh, André rue Ponty rue mais quest que ça veut dire ah ay Pierre ak i Mendès yoon yooyu rek nga fiy dégg sunu héros yi anañu anañu doo leen xam nga ndakaaru gi waroon naa am boulevard boulevard bu mag buñ tuddee Amari Ngoone Sobel mi nga xam ne def sénégalais yépp la rendre service sénégalais yépp la rendre service en 1549 kooku koy waroon na fee am mbedd mu rëy wala place bu ah, waaye duñ leen tudde dara hmm? ku demee ni wal joojo njaay fii mu taxawoon ci ci ci ci place Protet fii jàkkaarloog euh, ministère des affaires étrangères def fi discours am bu rëy boobu devant le général de ah? mais ana lan lañ ko tuddee wal joojo njaay fii ana lan lañ ko fi tuddee foofu place boobu waroon naa tudd place wal joojo njaay parce que loolu mooy tax senee ku fa romb ni lu tax ñu tudd ba pare def fa nag ay bind bind ci histoire wal joojo jaay parce que histoire am dootu fay waaye bu dee nii la ñuy doxee dana dem ba kenn du ko xam kenn dootu ko xam parce que jàngunu ko te loo jàngul doo ko tari waaye waaye wal joojo mérito na dëgg ñu tudde ko place bi parce que moo fi def nag lu rëy keroog ñu bari ñu ngi naan Senghor daa xaw a yoxoosu <laughs> moom ma Mamadou ja kii na ni daa nekk vacances kii ni ay bëtam day metti waaw ñu bàyyeek wal joojo lu toll ni tournée boobu fekkuñu fi Senghor fekkuñu fi Mamadou Dia wal joojo dékku ko parce que doomi buur la am na fit wi général de Gaulle booba kenn ñi ma wut a jàkkaarloog moom di nga ku dul Sékou Touré ak joojo Ndiaye ci des ñëpp wooy lañ ko wax wal joojo ni ko déedéet danoo bëgg indépendance fii ba mu mer jël discours am def ci biir poosam waaye doomu Sénégal bi defoon loolu foofu kay xanaa war ngeen ko mën a tudde place ba xale yi di ñëw ni xam ni place wal joojo lañ jëm waaye foo jëm rue André Lebon foo jëm rue Félix Faure foo jëm rue doctor Thèse foo jëm rue euh, Marchand foo jëm rue Jules Ferry ba kañ jusqu'à quand kañ la ñuy am suñ liberté parce que ah, liberté nag boroomu fit a koy am de ah il nga am fit boo amee fit dëgg-dëgg liberté daal di yomb waaye boo mutu fit doo ko am te ñun li nu doon wax dëgg yàlla lépp fit a ko lal sunu maam yi ñu ci baree baree bari li leen yóbbu yowmal xiyaam mooy défendre seen patrie ba seen bakkan des ca ñooñu ku leen doon waroo ragal te boo ragalee doo avancé parce que lu ñëw nga yaakaar ko ci keneen fàtte yàlla ñàkk gëm yàlla sax ñàkk ñàkk ragal la parce que euh, gëm yàlla day joxewu fit koo gis mu ragal gëmut yàlla parce que dégg nga wolof yi dañ naan ragal yàpp yàlla la wax nañ dëgg ndax yàlla li muy dogal foog mu dogal ko boo ñimee boo waree dee ci xeex di nga dee ca xeex ba boo ñimee ding ca dee boo ragalee kon kay ñimeel boo boo deet am woy la la joor waxoon xaadimu rasul ba mu ko nee bàyyil ma defal la lu gën lii nga musal la ci tubaab yi mu ne ko déedéet mbàkke bàll xam naa li nga wax man nga ko waaye nee nañu mën a mën a mën a ba mënatu ma ni du man tey jii dinaa julli ji insha allahu takkusaan ak sama sëriñ ba ma ba jaxu ba la almaami du rib loolu mooy mooy fit kenn ku nekk bëgg nga sa bakkan waaye dee it bàyyi fi woy lu rëy la ndax cent 1800 1886 la fi Lat Joor jóge ba tey jii ñu ngi koy tudd ki sa kenn dootu ko fàtte abadan dañ koy tudd pourquoi parce que la mu def la ca gën a mooy donner sa yi pour pour sa patrie la Alburi Njaay doon wax naan ku xeex ba dee kenn mënul la <laughs> ba muy jàppanteeg mbokkam ba law Lawbe mbokkam yi ni ko jekkali ko mun leen duma ko rey ndax ku dee kenn <laughs> dee kenn mënu la yooyu nag dafa mat di état bi ni ko soxna si waxee rek wax dëgg yàlla war nañoo jàpp ci nu ñuy restaurer nag royaume yi euh, nii ñuy defare këri diine yi ñu defare ko këri aada yi ndax bu ci nekk am na lu muy def ci réew mi te këri diine yi këri aada yee leen meññ këru diine goo dem fekk fa sëti këri aada yi benn famille la waaw seeni taalibe sax ñooy sëti ñooñu waaw boo demee boo demoon Tuubaa tey jii boo fa génnee de ci fu njóogu la des du bari de <laughs> boo fa génnee saa xewar ma la fay des du bari de maa la wax loolu tey bàmmeelub saa xewar ma boo demee ci ma xanam mel saw yaram day daw saw yaram day daw kuy maami ñëpp ci réew mi bàmmeel ba la fa nekk lépp boo ko calculer matul matul matul vingt ci bàmmeelub maam ju toll noonu waaye nañ defari suñ bopp waay ngeen jéggal ma nag bu baax a baax a baax waaye maa saa xewar nekkatul maami ñi sant Jóob rek maami sénégalais yëpp la barabam ba nee mu mel jaaduwul jékkul wax dëgg yàlla kon nag euh, ñu yem fii rek incha allahu ba suba bu subaa nag comme niñ koy defee rek ñu dellu si waxtaan ak yéen ci ku baax ku newoon ci réew mi def fi lu baax e, di ñaan jàmm ci réew mi di ñaanit e, yal na yàlla sàmmal ñu sunu Sénégal te élection yi jaar fa mu daan jaar e, kii yàlla tànn yàlla na gën ci ñun ndax moom tànn na ba noppi ñun ñoo fi ne di wax rek waaye ñu baree bari nag ñiy wate dëggantaan ñoom waxuñu xuloowuñu demuñu sànni wu ñuy xeer ñu ngi toog yor seen carte mat ay nit ndax nag yenn yi ku cay dugg da ngaa xaw a manqué ndax jaru ko waaw <laughs> xeexal ko ñaar ñoo xëy boo lëggee nga seen leen ñu àndaat jaru ko kon nag euh, ñoo ngi dem rek di leen tàggu bee suba ak jàmm yàlla na nu yàlla may jàmm ba nu fekkee ko suba te yàlla may nu wér ngeen di nu ñaanal it waaw di nu ñaanal bu baax a baax ndax soxla nañu ko euh, allahumma salli ala sayyidina wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu fi amanillah jëf